nekk ndaw ñëw fii di bay almeer yi dafa nekkoon activité bu ñu intéressé woon parce que lii mooy sunu environnement ñun fii la ñu màggee euh, di gërëm ñi jël initiative bi euh, bu ñu ko defee rek ñu ngi mottali tradition boo xam ni euh, sunu baay Amet Dieng nekkoon na ci sëñ Modou Kara jaar na ci ñun ñëpp tey nag initiative foog naa ci gunéewu Médina yi la jóge donc ñu ngi leen di ndokkeel mais di am constat ñuy def rek. moo di gisuñu waa Médina yi ñu bare génnuñu waa Ndakaaru waxee noppi waa Pikine yi ñu ngi leen di gërëm parce que bare nañ fi lool lool lool ñëw di jàppale kon nag euh, appel bu ndaw rek lañu ñu bëgg a lancer mooy euh, samedi prochain bu nu yàlla dimbalee nee nañu am na aussi beneen journée euh, ñuy woo rawatina nag sunu mbokki Médina yi ñu ñëw génn jàppale xale yi xale yi soxla nañu ko et soxla nañu façon ndimbal bu ne soxla nañu présence physique soxla nañu ndox soxla nañu ndimbalu poos soxla nañu lépp parce que dañuy defar ay café di joxe añ di def lu ne kon nag na ci ñëpp jàpp ñu ñëw parce que fii ku ne am nga fii ay maam donc lu ñu bokk la nañ ñëw ñu defar ko signalé nañ ñu nag ay yenn problème mooy problème mu sécurité dañ ci profité wax ko euh, problème mu électricité problème mu pavage donc yooyu ah ñu ngi ci woo le maire de la Médina, oh, le maire de Dakar, oh, le président de la République et le gouvernement du Sénégal pour nous dire que nous sécurité, éclairage, fichier cimetière. C'est très louable. Nous avons deux bons qui nous été en train de se Nous avons été en train de Mais nous avons été en train de se faire. même donte tell ji nga am njëriñ sax am nga njëriñ ci làmb ji boo liggéey wala waa axlu làmb dinañ boo amee njëriñ ci loo xam ne suñu boroom moo ko def moom ko yaakaar ci perte gi tamit borom boroom dina la fay loolu mooy euh, principe de base bi war a dox ci armeel yi principe de base bi nga xam tam war naa dox ci àdduna bi ndax fi fi ñëw ci li xalaat yàlla fi ut du cimetière des abattoirs qui est un cimetière historique cimetière bi armée française si boppam dañ fi am wàll armée sénégalaise dañ ci am wàll njaboot famille bu tekki ci ndakaaru bi ndakaaru yi ba waa kër Thierno Mountaga dañ fi am wàll xaadir yi gis ngeen ne ñi ñu ngi seen ginnaaw dañ fi am wàll am fi ay cheikh armeeru Beto'ar moom day sunu lépp ndax fu ay maamaat tëdd yoo xam ne ci ñoom nga sokkeekoo kon defe naa ne fii da fi am cër rawatina nag mu nekk ci diggu xolu Médina te ñuy doomu Médina armeeru Betuwaar moom yemul rek ci Médina Ndakaaru yëpp ko bokk moo waral suñu teewaay eh, di def appel aussi fépp fu waay nekk rawatina waa Médina ak waa Ndakaaru yëpp ñëw ci lii nga xam ne liggéeyal suñu borom la ba ñépp mën ci am ngëneel mën ci am tiyaaba. parce que lu la war soo ko defee da ngay wàcc ndax lii ñu def daf ñu war on est dans un des enfants de la Médina te bërëb yi d'abord ci wàllu diine suñu wareef la ñu toppatoo ko ndax lu waay di def foo jënd titre foncier ak nangami mètre carré yoo mën a am fii ngay mujj koo mën a doon ci àddina fii ngay mujj. donc nga intégré ko ci sa On nga tel ko intégré le bax donc une dimension religieuse bi ci dess moy dimension sociale Médina lañ dëkk ta armeer yi ku ko xam xam histoire bi mu ak Médina c'est c'est un cimetière mais cimetière bu fess del ak histoire la et on gagnerait beaucoup à expliquer aux Médinois l'histoire de la Médina et l'histoire du cimetière des abattoirs donc da fay bax mag ñi nekk ci gox bi nu ñu mën a organiser woo pour ñu koy wax gars yi di xam c'est quoi listoire donc bi ci des suñu ay maam ñoo fi tëdd ndax ku dëkk Médina sa kër cosaanoo Médina say maam cosaanoo Médina wala juge plateau ñëw Médina d'ailleurs la plupart parcelle le cas cimetière yi am nga fi maam donc ñu ñëw fi tey nag en tant que doomu Médina waaw casquette boobu lañ fi ñëwee doomu Médina pour ñëw. ñëw ci li ñu war en tant que julit croyant mais aussi war en tant que doomu Medina pour ñëw def jàpp ci liggéey bi liggéey bi bëri na yombul gisoo li fi des suba ba léegi fi mais ba tey des na. ba tey des na ba tey léegi mooy xanaa tam ngay une autorisé également tamit ban appel ngay def tamit xale yi gën a génn parce que tamit Medina nee nañ génnuñu ba waa am nañu jóge Pikine ñu bari sax ñoo fi ëpp ñëw jàpp ci également tamit autorité mën a jàpp te gën a dooleel xale yi tamit pour si matériel. parce que jeexagul weekend prochain tamit amaat na. effectivement nañu renforcer la sensibilisation invité ñëpp parce que bon souvent xam nga àddina bi moo dem ba léegi bu dara xewee nit ñi au ñu xool. quintessence euh, wu li xew maanaam essence bi dañuy seet ñi organiser ñan la or li ñu organiser du kenn quoi man euh, daanaka booy seet xaw ma sax kan moo organiser dañ ma yónnee affice bi euh, il y a quelques jours ma kenn ki ma ko yónnee ma laaj ko mu expliquer moom ma ne ko de toutes les façons man dinaa ñëw sama contribution bi ma am mu tuuti ma andi ko ñëw ci cimetière yi jaamu yàlla parce que comme je dis hein le premier aspect c'est la la la dimension religieuse jaamu yàlla la. li ci des nag doomu Medina donc soo déggee loo xamante ni dafa concerne ak mu am foo xamante ni euh, say maam ñoo fa tëdd c'est un devoir nga jug taxaw loolu donc moo moo donc j'appelle tous les Médinois donc lii ñuy def nii suñ bopp lañ koy defal. parce que ñoom ñoo ñaanoon yàlla xëy na yàlla may leen njaboot yoo xamante ni ëllëg dinañ leen fàttaliku ba fi ñu tëdd ñuy dem di ko nemmeeku di ko defar mais ñun tamit buñ ci sonnul ëllëg est-ce que suñu ay doom dinañ ñu ko defal est-ce que dinañ ñu ko defal nañ xalaat loolu. donc euh, suñu wareef la ñu ñëw doomu Médina yëpp ak ku mu mën a doon quelle que soit say sensibilités quelle réalité soit tes réalités quelle que lii seen position commune ci wàllu diine beneen bi ci wàllu société ndax ñun ñëpp ñoo bokk Médina na ci ñëw ñëpp dugal seen loxo ndax xam naa ni su nit ñi génnoon massivement kon heure bi liggéey bi jeex na bañ jàll ci leneen mais soo gisee ñu defaat donc beneen jour incha allah donc week bii di ñëw. ñu woote waat ñëpp ñëwaat gaay renforcer la sensibilisation na ñu jël ay auto duggu ci koñ yi wax nañ ni euh, man maa ngi dëkkee ba 45 ak fi mu xewee pratiquement yaa ngi ci début Médina man maa ngi ci fin Médina est-ce que ñi dëkk foofu yéeg nañ ko donc ni ñuy ut ay moyens logistiques dugg ci koñ yi sensibiliser jeunes yi ah doomu Médina ñu ñëw jàpp liggéey parce que loolu dong moo ñu war a yaa yaa yaa rien d'autre. xam ne citoyen la dama war a contribuer dama war a contribuer si lépp loo xamante ne dañ koy def fii ci Ndakaaru moo tax ma andi 1000 masques. Ah. Euh, pour soutenir jàppale. Mm-hmm. gis nañ ni tamit euh, affluence xaw na ndaw Gueule Tapée tamit bëri nañu fi ay ay kilifa yu fi tëdd fii tamit Médina Kazalikul quartier yi wër ndax euh, Médina ak yëpp ban appel ngay def tamit pour weekend prochain également ñëpp mun a génn. waaw pour weekend prochain dañu bëgg ñëpp ñëw en masse bëgg nañu ñëpp ñëw aussi ak si seen doole parce que soo xoolee fii allie ko Ndoye fii lañ ko denc te moom moo dëkk Gueule Tapée Aja Warax jen mu ngi fii donc mag ñu bëri ñi nga xamante ne ñu ngi Gueule Tapée ñu ngi fii ñu denc leen donc moo tax maa ngi woote appel que communauté Gueule Tapée Fass Colobane ñëpp ñëw teewee ko ci week prochain parce que gis nañ ne tey fête la te ñi ci bëri ñëwuñu ñu ngi seen kër yi ci seen dama bëgg weekend bii di ñëw ñu génn ci clim génn ci néeg bi ñëw jaamu yàlla ku nekk fi defaral rek sa bopp nga ko ça fait deux semaines. agent ville de Dakar yi ñi ngi fi ak FERA bi nekk ci armée yi di ci bay xëy na appel bi waa naa def tey lañ ko def et ñëwandoo fi armée yi nag ku ne gis na nu mu toll ville musul manqué def ci armée yi yewoon daaw ñoom accompagner nañ leen ci ba mu jeex yii ñoo ko tàmbali te jàpp naa ne incha allah communication bi bu jàllee e semaine prochaine incha allah ñoom dinañ ci teew ñëpp niñ ci war a teewee ba ñu matal liñ ci bëgg yëpp incha allah rabbi merci beaucoup. Hein. waaw am na aussi lo xamantene gis nañ population bi ñu ngi ciy plaindre ñu remercier len déjà yeen ñu permettre ñu mëna def appel ba ñëpp war ko mëna gis wara mëna mën ñëw fekk suñu fi d'ici week-end prochain mm. et di ñaan aussi comme ni koy ni ñu koy ñaanee mooy autorités yi fi nekk en première moy le maire Bamba Fall mu xamné li alalam la yëfam la ndax mom kuy ñëw mom nga ciy jàppale Eh, di ko wax weekend prochain incha allah mu taxaw ci comme ni mu daan taxawee ci biir Médina ci wàll wu ne am nañ ci moom yaakaar mu ñëw jàppale si ñi nga xamante ne ñooy askanu Médina askanu Ndakaaru appel bi aussi c'est pareil pour le maire de Dakar am na loo xamante ne gis nañ ko fi comme ay travaux ñu sollicité ñu fii dafa am ay agresseur jaxasoo na ñu gis ni mu def armeeru yoof ñu bëgg na nag fii ñu nekk yit mu am mu teg ci loxoom ba ku ne am ci accès mën a yegg fi nga war a mën a yegg tranquillement am sécurité loolu nag ñoom ñaar lañ ci interpellé ndax ñoom ñaar kii moo nekk communal ki nekk la département donc ñoom ñaar ñëpp ku ne am nga ci cër ñu ngi ñaan ñoom ñaar ku nekk sa cër nga def ko ci biir armeer wu bétuwaar yi ndax ngëneel la ay wàlliwa ngi fii ay ay kilifaa ngi fii euh, ay ay ay notable yu mag a mag ci biir Ndakaaru ñu ngi fi tëdd kon daal loolu mooy appel bu ñu doon def di ko ñaan d'ici semaine prochaine daal waa Médina yëpp Ndakaar yëpp tase fi incha allah ñu mën a yeggale almeer yi ci jàmm.